voilà loolu maa sant bépp booy autorité boo leen gis mu ñëw seen gox sol ñetti garam bu bëb di bandi bandu la ko wéy wéylu di cakas cakaslu ne wayal leen ko rek moo laa ngi yow moo laa ngi yow moo ngi yow gars yi ne dal seen kaw moo laa ngi yow moo laa ngi dal seen kaw préparé wu leen moo laa ngi ñëw dal seen kaw xale yépp jàng leen loolu moo ngi ñëw moo laa ñëw autorité boo leen gis de la république buy wéyu wéylu ka bandi bandilu aka bandi saltalu aka wéyu wéylu nee leen ko rek moo laa ngi ñëw billaahi dina daw bàyyi leen fa du fa jage du fa laal <laughs> du fa laal danaan day daw même bu doon ñolo solo si day dox tànk da koy dëgëral parce que daanaan moo laa ngi ñëw de même bu xam nga da nga day gis ñuy dox nii mel ni ko doon laal suuf naan nii koo ci ne moo laa ngi ñëw coccalee nii la def rubo moo ngi ñëw xaaral ma dal parce que moo laa day wàcce day wàcce moo tax kon ki ngeen géwéloo mbaay nga ngeen gis noonu muy <laughs> parce que damay ñëw ci far Farba Ngom te doom ja na caa laqaale doom jaa ngi takk rëpp ca mbir ya yéen ñun ñoo leen di wili pande ba ngeen set wecc donc euh, ñu dugal audio Adji Sarr bi booy bi yónnee waat na ma ko après ñu eggale ayca let's go guys waxee ñëw envers toi ils vont refuser nañ bañ dañuy bañ xam nañ yow yaay gañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa gañ. yaay bañ léegi nag xam nañ ne si ñuy foofu fekk ak man rek da nga am influence si ñoom. merci beaucoup. ñu nekk ak man yëpp dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn damaa bëgg a tabaxal samay mbokk. jox leen ci loo xam ne ñuy yëngatu ci sama ba lii jeex xaaral ba lii jeex. loolu nag mooy solution boobu kese moo moo fi ma la soo sinon dañ lay bëgg wax non xaaral mu jeex instant bi on de mais li fi wax rek moo fi des. woote jommal nañ ma nag mais Sénégal ñii woote mais man du jël appel. du ma jël appel ku dul samay informateur du ma décrocher appel bàyyi leen woote du ma décrocher appel loolu wax naa ko Sénégal yëpp daj na ñuy woote nañuy yombalal seen bopp maa ngi teg audio am kuy woote te wóor na ko ci juróom-ñaari maamam bu ñu wàccoon du ma décrocher du ma wax appel man man bandi cerveau laa du ma wax appel du ci code la lépp ci code bàyyi leen appel yi ngir yàlla yërëm leen seen bopp seen juróom-ñaari maam bu wàccoon seen ar arbre généalogie bu wàccoon du ma décroché appel dama am ay réseau yu wëri information ñoom kese laay décroché parce que dama leen di sant dama leen ma fi dama leen ma fee ku bëgg a wax ak man na nga audio wala nga bind du ma décroché appel sonn ngeen de du ma décroché appel damay xeex talu may wax du ma décroché appel ku teg audio nag mën naa la déglu mu ma la waree tontontu la bu ma amul jot bu ma kii ba bàyyi leen appel yi leen sonn seen bopp <laughs> yéen da ngeen foog ni man damay caaxaan toog leen rek yéen toog leen rek di comprendre après xeex bi nan la demee Aïcha ñu demaat. waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser nañ bañ. dañuy bañ xam na yow yaay kañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa kañ. yaay bañ léegi nag xam ne euh, si ñi foog féete man rek da nga am influence si ñoom. merci nekk ak man yëpp dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen diil dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole ne leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn dama bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñii yëngatu ci sama papa ak sama. frère te wax non xaaral ba xaaral ba li nag boobu kese moo fi des li ma la wax noonu kese moo fi des. a si non dañ a bëgg wax non xaaral ba mu jeex instant bi on peut pas donner de l'argent je sais pas parce que euh, loolu lañ lay bëgg di bëgg di wax man soo ko xaaree réaction nga nekk de mais li fi wax rek fi sës. waaw xam nga nag loolu ñu ne xaara xaara xaara danañ xaar loolu mais lii ma wax denc ko ëllëg wallahi lazim bi nga toog ay suma yëgoon wallahi lazim. mais pour l'instant damay toog su ma gisee benn je sais pas ba dem nag leen après ne la sama gars la laata. boobu maa ngi nekk di jëm te loolu je ne sais pas je ne sais pas. ah waaw ñu ngi noonu ñu ngi noonu doy na waar bi mais nag garaaw yow yaa ngi day mbilik ah yaa xam lu la arrangé su ma leen woowoon tey doon bëgg ngeen defar suñu waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñi ñuy wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu feneen duñ ñëw parce que xam nañ am na influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw waaye léegi. duñ ñëw yow yow léegi toogal seetaan ma. donc fii audio bi Adji Sarr dafa bëgg yónni MCS pour mu dem négocier ak ak. Euh, ravisseur am maanaam gouvernement bi ko jàpp téye ko tëj ko ci kaso bi mu bëgg dem négocier balaa moo toj kaas yi di wax ci seen siri bu maam yi ah mu yónnee MCS pour MCS dem négocier ak autorités yi parce que te moom nee na MC bu ko loon woowoon tamit du ñu ñëw. aji leen touchable ku ko neex mu ne la ñam nga ma benn ñu ngeen di wooyee kilifa kenn sañu ci <laughs> euh, euh, porter ko plainte tudd na ñi mu ci tudd ñëpp tamit ay caga lañ ñu ci tudd ñëpp euh, dañuy wurang wang di taxawaalu gis na wan naa leen tey Ali Nguy ñàmmi Njaay gelam bi muy jox passeport diplomatique di ko fayal appartement huit cent mille jëndal ko Ford euh, bu cher l'Ascri donc gis ngeen donc Adji Sarr tamit waxantuwul ña wax ñëpp wudang wang nañ ko ña wax ñëpp ñam nañ ko te ñu ci bëri am nañ ay doomu biiral wala ñu doon ay doomu biiral waaw Antoine ñàkk jom doomu biiral la ki nga xam ni euh, euh, moom mooy euh, lu mu tëdd di ngóor si ñes moom it taawum doo bi doomu biiral la ñi muy tudd ñëpp bugaan am na ay doomu biiral am na ñaari gel yoo xam ni xam naa leen yu biiral kenn ki ci am la sant euh, ñi nga xam ni euh, bugaan biiral na seen yaay donc bari na ñoo xam ni ci ñoom euh, kii nga ñaareelu jabaram tamit bugaan journaliste la woon animatrice la woon ci terem bugaan biiral ko doo ko takk donc ñi quatre-vingt-dix pour cent ñi aji saadi tudd yëpp ay doomu biiral lañ wala ñu biiralaate donc loolu moom ngeen jàpp ko donc Adji Sarr doful jina jàpp ko toxul naanu sàngara ñi muy wax yëpp dëgg la ay ñoo xam ne la seen euh, CV euh, soit doomu biiral lañ soit biiral lañ dañuy biiralaate soit dañuy wudang wang soit dañuy fooye alal donc Adji Sarr juumut ñu wax yëpp dëgg la jaar nañ fa ñam ñamaat nañ fa ñamati nañ fa jox nañ ko alal gu bëri donc fii Adji Sarr day négocier ak MC te li mu doon wax yëpp dëgg la ci moom donc voilà lu muy mën a fen yëpp waaye lii moom dëkk la ci moom mi nga noonu kon ay cee ñu dem aji dafa mën a fen parce que Sénégal li ñuy woowee mën a fen mooy raconter raconter moom day raconter aji dafa mën a fen nag mais loo ko def mu wax ko te autorité yëpp aji saar am na seen euh, euh, troisième jabaru Bougane ah, yee te aji saar euh, am na audio bépp autorité bu ko ñam aji saar am na audio bépp autorité bu ko ñam bu dugal ay bagaasam ci bagaasu aji saar ba maanaam ca bëtu nag ya ki nga xam ne mooy Mamour Diallo it wax naa leen ko moom it biiral na benn cousine am ca kaw la kaas naag boo xam ni euh, doomam euh, vraiment euh, mun naa leen ko wax léegi tamit wanoon naa leen fi photo bi ah naa leen fi photo boo xam ni voilà ci sama ataaya bi donc waxoon naa leen ko fi Adji Sarr baa ngi teg audio ma ñëw. waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser nañ dañuy bañ xam nañ yow yaay kañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa kañ. yooyu bañ léegi nag xam nañ ne si euh, ñuy foog feete ak man rek da nga am influence si ñoom. merci beaucoup. ñi nekk ak man ñëpp dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole na leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn damaa bëgg a tabaxal samay mbokk.

Euh, koo xam ni euh, tantay Mamour Diallo la nekk bàjjanu euh, ki nga xam ni mooy ndaw si mu biiral dëgg la ma ne kaas naag Kaolack Mamour Diallo dafa nekkoon benn kër tantam léegi gel bu mu biiral kooku maire boobu bàjjanam la donc ñoom ñaar ay cousin cousine lañ donc maam Mamour Diallo ca kaas naag Kaolack mu biiral fa cousine ca benn kër guñ dëkkoon ñoom ñaar mu koy tëddee ci biir kër ga di wurang wang cousine ba ba biiral ko ñu am benn doom doom boo xam ne jamono ji am na trente mu tudd Boubacar Boubacar Boubacar la tudd euh, mais mi ngi koy doog a yàgguñu mi ngi koy doog a reconnaître euh, ki mu biiral mi ngi tuddu Maam Ndeela Jàllo maam Ndeela Diallo mooy cousine am maam Ndeela Diallo cousinu Mamour Diallo la maam Ndeela Diallo mu ngi dëkkoon ca Kasnack Kaolack waaw kër googu nag seen benn tante ak bàjjan moo fa newoon foofu la Mamour Diallo Mamadou Mamour Diallo nekkoon foofu la jàpp cousine boobu di maam Ndeela Diallo di ko tëddee matin midi soir ba biiral ko waaw mu am fa doom bañ ko mooy Boubacar moo doom jooju nag Mamour da ko musa bañ donc moom Mamour tey bu bañee waru leen bett ndax biiral na cousine am ci benn kër di ko tëddee bañ ko kon waru leen bett donc vraiment ngeen gis Mamour biiral wala muy tëddee Adji Sarr naan xaw ma mosuma dem Sweet Beauté moom Mamour depuis jamonoy élève la biiralaate donc kooku noonu <laughs> ku yàgg ci biiral la ci biiral lu njëkk ya ci biiral lu njëkk ya donc ngeen jàpp ni Mamour Diallo am na doom bu am 30 ans. boo xam ni bu mu ko reconnaître cinq ans matu ko waaw mooy Boubacar Diallo Boubacar Diallo nag euh, bi ko Mamour di biiral yaayam bi nga xam ne mooy Mame Ndella Diallo ah bu mu koy reconnaitre ba trente donc xale boobu dund na vingt cinq ans vingt cinq ans te baayam Mamadou Mamour Diallo reconnaître ko reconnaitre ko donc jàpp leen loolu kon Mamour yàgg na ci biiralaate ci bañ biiral di bañ biiral di bañ dama ne yëfu jaam la Mamour biiral di bañ biiral di bañ dama ne yëfu jaam la biiral di bañ biiral di bañ biiral di bañ dama ne yëfu jaam la donc Mamour Diallo jaam la yàgg biiralaate la kaw la la ko njëkk a tàmbalee bañ ko donc ngeen jàpp loolu euh, ña nga dëkkoon kaw la ca kaas nag donc xale boobu dafa dof dafa dof vraiment da ku munoon jàngale ko yàlla mayoon la sorbon jaar na sorbon waaye dafa xëy rek vraiment bopp bi départ moom Boubacar euh, jamono jii may wax ak yow nii Sénégal ma nga ñu yóbbu ci hôpitalu dof yi nekk Caaroy boo leen fa demee di ngeen fa fekk Boubacar doomu Mamour jàlloo dafa perte ay euh, faculté mentale am ma nga fa ci hôpital dof ya ñu koy takk ka tekki di ko tëj ka tijji kooku Mamour Diallo moo ko jur mooy baayam euh, ki nga xam ne mooy Mame Ndella Diallo mooy yaayam ah kon Mamour Diallo ku yàgg a biir la donc ngeen jàpp loolu ah, ca kaas naag la xewee euh, Mamour nag mooy le cousin de la femme waaw donc problème boobu buggul ñu xam ko waaye euh, ba ma duggee fii sax mën naa leen indil photo yi parce que yàgg naa leen ko wanoon naa leen ko fi ah est ce que nekku fi sax xaaral ma xoolal leen ko vite fait ma tegalaat leen leen o yi xoolal leen photo yi ok waxee ñu ñëw envers toi ils vont refuser dinañ bañ. dañuy bañ xam nañ yow yaay kañ xam naa loolu dañuy bañ xam nañ yow yaa kañ. yooyu bañ léegi nag xam nañ ne si euh, ñuy faute féete ak man rek da nga am influence si ñoom. merci beaucoup. ñi nekk ak man yëpp dañoo am influence si ñoom. léegi nag loolu la ñuy bañ parce que boobaa seen biir dafay yàqu léegi nag xam nga lan nga mën a def taxawal oole na leen gis ngeen man samay mbokk dañoo sonn. dama bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne nga tucc sama pasta ak sama. bëgg di wax non xaaral ba li jeex xaaral ba li jeex. loolu nag mooy solution boobu kese moo moo fi la wax noonu kese moo fi des. so sinon dañ lay wax non xaaral ba mu jeex instant bi on de l'argent je sais pas parce que loolu lañ lay bëgg di bëgg di wax man soo ko xaaree réaction bi nga nekk de mais la fi wax rek xam nga nag loolu ñu la xaar loolu. mais lii ma la wax denc ko ëllëg wallahi lazim di ne ay suma yëgoon wallahi lazim. man la mais pour l'instant su ma gisee benn je sais studio ba dem na leen après mais nag sama gàlle laa ko. yow a ndeyu mbili gi ah yaa xam lu la arrangé ak lu la arrangé wut waaye man de dama bëggoon. le fait tu sais le fait de ici ne me plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suñu waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñu ngi wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sëriñ suñu kilifa bu fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw. waaye léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir mi. waxee ñëw envers toi il faut. donc kii la Mamour Diallo euh, biiral mooy borom Mamour Bëtu nag Mamour Bëtu gaynde Mamour Bëtu gaynde ki moom mooy Boubacar euh, trente ans la am euh, vingt cinq ans dund na ko yaayam muy cousin Mamour Diallo di cousin wu yaayam biiral yaayam ca Kaolack Kasnak bañ xale bi ca biir kër ga la wurang wang bi yëpp doon xewee jamono ji Mamour mi ngi koy doog a accepté il y de cela juste cinq ans mais xale bi dafa feebar vraiment dafa am feebaru xel mara day taali euh, ñi ngi koy faj euh, sorbon la jaar ku munoon jàng ku doy waar ci jàng yàlla mayoon ko vraiment capacité yu doy waar waaye xale ba daa xëy rek euh, feebar feebar topp ko mu xëy xëy na moom moo jege. parce que Sénégal souvent gars yi dañuy jël cousin cousine yi di leen marier waaye euh, xam nga deret dret bi euh, day dafa jege de trop mun na def ay séquelles vraiment moo tax euh, <laughs> Sénégal day metti loolu bu dee tubaab la nag inceste lañ koy woowee malgré mais bu dee ñun la jeu di juste ce qui se passe bu dee ñun la souvent kër yu bari. papa ak yaay bi ay kii lañ mais donc Mamour Diallo gis ngeen nu mu nuróowee ñoom ñaar ñoo niroo costume nuroo karawaat lépp ñëw ko nuroo vraiment kii euh, bu doful woon mara ndeysaan heure bi dina ñëw doon ministre wala député parce que euh, sorbon la jaar jàngkat la woon Boubacar mii di Boubacar Diallo ah, Mamour Diallo moo tooñ yaayam Mamour borom bëtu gaynde moo jaar fii donc Mamour ku yàgg nekk bandi la ku yàgg biiralaate la euh, ab ab caga la et cetera et cetera donc euh, ngeen euh, jàpp gum koy jàppee gum ko noonu donc voilà lu kooku mooy Mamour jàllo donc je pense audio complet bi mi ngi noonu hmm, ngeen ngeen jàppee ko noonu wu Wudang Wang la ñu nekk ay bandi salté ay caga drogué ay caga baar ay politicar ay kagulaar ñoom ñoo téye Sénégal benn famille moo téye Sénégal te Macky Sall benn complexe la am mooy dëgërul ci kanamu Marème Faye bu Marème Faye taxawee sincèrement Macky Sall da koy lem toog kon jàpp leen ni ñun euh, première daam moo ñu jiite mooy tëjaate mooy bàyyiwaate te lu ko neex mooy am donc ngeen jàpp ni ay caga ngeen yor ay bordel ngeen yor euh, dee leen def Euh, lii nga xam ne mooy background check balaa ngeen di fal seen i njiit de leen def lu ñu naan background check waaw boo leen defee background check euh, doo leen rëccu ngeen di wut ay éléments yu mel ne ay Mola Morgan yi nga xam ne ay millions lañ koy proposé mu dëdd ko ay kër lañ koy proposé à Almadi mu dëdd ko ay terrain lañ koy proposé ci euh, géejawaay ca filaawo mu dëdd ko ay euh, euh, lu mu tudd passeport diplomatique lañ koy proposé mu dëdd ko gar bakkanam dee leen jël bu ëllëgee boo leen di choisir dee leen choisir ay ñu bëgg patrie bi ay nationaliste dee leen choisir ay patriote ñi nga xam ne duñ leen sàcc ndax alal àdduna lu ne lañ leen tagal sur le plat ñu dëdd ko euh, kajj ko gëm ni seen patrie ñu ngeen jël ay doomu aadama yi mel ni ay Karim Xonqax nga xam ni lib la liberté n'a pas de prix imagine leen lu musul am jamono jii ay prouesse yu musul am la yenn activistes yi def ci Sénégal man mii ci laa euh, maa fi nekk premier activiste bu taal town bi ñu paniqué wu ba dem di taal town këru samay famille donc mi ngi doog a am may activiste bu ñu jël famille am ne dañ koy cotiser pour premier fois fois dans l'histoire ñu dem jóg gouvernement bi jóg ak seen faux euh, profil dem ba bloqué li nga xam ni moom mooy cagnotte euh, euh, boobu noonu maa ko njëkk a def waaye Abdou Karim tam def na lu ma musul def abdu Karim rek mooy doomu aadama bu ñu libeere ne ko signeel euh, liberté provisoire boo xam ni dañ lay tegaale ay daan abdu Karim ne duma ko signé du ma ko signé du ma ko signé waaye am na yaay yoo xam ni ñu ngi jur ay goro am na yaay yoo xam ne ba léegi ñu ngi sukk di jur ay garmi am na yaay yoo xam ni juruñu mbott juruñu mbóot juruñu jinax juruñu kaña ay góor yàlla lañ jur ay jàmbaar lañ jur ku mel ni sama yaay ji moo jur doom ji tey bu tënk nguur bu jommal nguur buy panikeloo nguur buy tiireloo nguur fu mu te tiire donc ñooñu yaay jooyu yaay yooyu ñu ja ñu brave lañ